maa ngi sant bu wér. soq Franc noo ko gisee. soq Franc naa daan sa morom. bu naa daan sa mais Franc mooy sa mbër man. waaw Franc mooy sa mbër. ñoom ñaar noo gisee seen état ñoom ñaar ñëpp ci état mais Franc de koo gën nekk ci état. ndax Franc li muy bëree day bëree mba bëri simple quoi. moo tax. fii ba suba sonn. loolu laa gis mën na jeex ci xeex mën na jeex ci bëre mais France su ko jàppee lamb ji jeex. sëñ waaw jeex ak. damay la yëy gerte. mon ami ah gerte gerte ñoo ko moom. lii dafa baax de lii dafa baax. lii dafa baax si doomu aadama lii ñoo ko moom nan koy jëfandikoo. macha allah France sox waaw combat bu neex la. combat technique la nag ndax ñaari ñaari bërikat lañu. waaw mais bu ma doon joxe favori dama koy jox Franc. maanaam bu ma doon joxe favori li tax ma koy jox Franc mooy luur yi nga xamante ne Franc bëri na ak ñoom. to gën si ma ñoom. en général dafa yomba am problème si luur. luur yi ma gis soq bëreet yu si ëpp dafa am problème si ñoom ñi ma gis ñu bëreeg soq ëpp soq gabari ñu si ëpp dama gis Sokh am si ñoom problème mais Sokh mu ngi si état bu baax actuellement nii mais bu may joxe favori Franc laa koy jox. maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Fallou Galas Ndiaye. Galas Ndiaye. Galas Ndiaye waaw Franc Sokh. Franc Sokh combat bu neex la. neex na trop. parce que ñaari mbër lañ yoo xamante ne ku nekk def nga say preuve si làmb. mais nag su ma doon joxe favori Franc laa koy jox. parce que moo gën a attiré. Franc moo gën a attiré Sokh. parce que Sokh mbër la waaye dafa bari lu muy sóor si mbër moo tax mais ndaanaan la bu bàyyiwoon sóor bi rek mun na doon roi des arènes ëllëg waaw mais dafa bari lu muy sóor kii nag dafa moom doon mbër boo xam ne kum gis yar bi mi ngi si digganteem ak gars yi quoi mais kum gis day yaakaar ne moo la man te loolu lay moom Franc. grand maa waaw maa ngi lay siyaar bu tudd man laa tudd. Fransoc. ah. Fransoc. ah Fransoc combat la bu neex la wax dëgg yàlla mais man daa maa ngi ci soq quoi doom Pikine laa te moom laay supporté moom laay ñaanal yàlla may ko ndam waaw jël wu rëy incha allah ci kattanu yàlla. waaw favori bi nit ñi wax naan ay Franc mooy favori d' naa loolu parce man doom Pikine laa nangu naa ne Franc mooy favori mais itam nag xam ne. Sokh dafa préparé combat bi waajal boppam li tax mu jël combat bi ñu bari la yoonoo waru ko woon jël jël ay risque am jëloo ko boppam kon yaakaar nañ ne maanaam bu ci maanaam yaakaar nañ ne dina ci wane fulla ak fayda yàlla may si ndam mu jëlum set wecc waaw waaw comme li mu wax rek laa wax de waaw ñun moom ay doomu Pikine lañ buñ sañoon moom wax dëgg yàlla Sokh gagné combat bi mais nag laaj na liggéey parce que Franc moom ku ne xam na ni mbër la compétir am na doole mën na bëre te xam naa ne ñàkkul waaw il faut nga pare sur tous les moom sox il faut mu pare combat bu baax sur tous les plans mën ko affronter quoi mais nag yàlla baax na daal waaw. non favori moom bu dee dëgg rek la ñuy waxal moom Franc mooy favori moom. waaw mais nag lamb moom léeg fa favori mën na tromper nit ñi daal. waaw parce que sox tamit li tax mu jël combat bi xam naa ñàkkul am na fu mu ko teg. waaw mais na liggéey rek yàlla baax na daal waaw. gaynde waaw waaw. grand maa ngi ñëw ci yow. kilifa yi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay waaw combat bu doy waar combat bu doy nga ma laaj. xam nga Franc dafa amagul benn defet te li amut defet du dara dul mën a bëre ba am doole xam la muy def mbapat ba mbapat ba oos soq doon dina étoile montante ku yéeg gëmul lu dul doon roi des arènes gisul sa Franc daa gis keneen ku dul franc mooy ca kanam lay gis te ragal naa mbetteel dana am. favori jox fa xam nga favori daa naqaree wax ci lamb ji léegi. yaakaar naa ne analyse bu amee ci combat ku joxawul favori est-ce que du da ngaa ragal. Franc mooy favori ci man ci sama xalaat bu gàtt waaye dama ragal. am na loo xam ne ba ko bëriwaale soq dana ko nax daan ko ndax soq telewul lan la noonu ah non mbër nag xam nga parfois gars yi dañuy analyser di ragal mais bu soq bu soq daanee surprise la ci lamb waaw parce que nit bu fekkee ne bi ngay bëre kenn xam fu mu nekk. mu def ci lamb loo xam ne defoo ko ci ba dab la moo ëpp moo la te bu fekkee fi ñu natt ci wàllu ngemb xalaatuñ nga ëpp ko ngemb mu daan ñoo daanut kon ku ñëw di jox favori soq xamoo lamb pour man lamb nag jeexal na ay wax mais bu faraat daanee kenn du ne lu tax mu daan mais bu soq daanee dina ne lan moo tax mu daan parce que gars yi seen analyse dañuy ragal mais technicien wala koo xam da ngay fréquenter lamb buñ la joxe lamb da ngay wax li nga xam lu la ci fekk baax na mais man bu ma doon joxe favori Franc laa ko jox waaw. am na solo. damaa bëgg nga waxal ma. waaw parce que Franc laa faral. Franc moom champion la. dafa daan sama mbër ndax man Bour Sine sama doomu ndey la comme dafa daan Bour Sine nag wax dëgg mënu ma ko faral parce que man Bour sama xarit sama lépp la waaw moo tax. combat bi xeex dina ci am wala bëre. non nañu xeex mën nañu bëre mais man bëre laa gën a séen waaw bëre laa gën a xaar. yow daal laa am supporté man Mame Gor Samb. waaw. maa doom day jaajëf merci.